asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci suñu dars ifadatul ahmadiya li muridi saadat tey di suñu ñeen fukkeelu dars ak juróom-ñett muy dars numéro quarante huit ñu war a jàng centième maqaala bi muy téeméereelu maqaala ñu ngi ci xafurra ba tey mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu ruux indaha wa salha an alqafilati ما لها لم تظهر من دام الجموم سندوسوس نجلات كون بيرم نجيجيجا قافلة با كونفوا با لطخ بلغي فينيبول سيري طيب السفياني سبب وليك ورال أن امرأة ذكرت بين يدي رضي الله عنه annaha tukaachafu wa kashfaha sahih dafa am jenn jigéen joo xam ne dañ ko tuddoon ci kanamu Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñu ne jigéen je yàlla daf ko defal kashfu dafay gis daal te gisam gi lu wér la Mawlana Cheikh Tidiane gëstu ay mbiram fa baxasa an xaaliha وهل هي متزوجة ندخ امنا بروم كير فكشف له عن حالها يلا غنيل كو حالك جيجين جي مخمني كو ام بروم كير له فبعث لها صاحبا له ميوني تشيموم بن طالبم وذكره موخو وحجي ميروح عندها وسلها عن القافلة ما لا لم تظهر فأخبرت صاحبه عن القافلة المسؤول عنها وأنها بخير فأخبرت مجه خبار صاحبه من مجه خبار طالب الشيخ جان بوب وقو تيميرم نيغمي ولا صاحبه عندن دوام عن القافلة نيغغا المسؤول عنها ويغا خامني موم لا رضي الله عنه wanna bi xeyrin ne jéggi googu mi ngi ci jàmm way nama attalaha turku li ko gàllankoor ba yéex mooy turku yi soldaaw turku yi ommaalu tilmisaan ñi nga xam ne ñooy liggéeyee tal liggéeykatu talmisaan yi ñoom axadu ibalaha faarixatan axadu dañoo jël ibalaha ibi wala ibi laha seen gëléem nga faarixatan fa taxamalal maanaam dañoo jël gëléem yi dem ak moom léegi nag marchandise yak bagage ya des fa turki yi dañoo nangu gëléem ya marchandise yak bagage ya des fa fa taxamalal karxalata karxal ci seen làkk ñaari baat la yu kalima murakkaba la kar ak xala mooy ibnu al abid doomu jaam ashabuhu asxaabuhu radiallahu anhu wa radduuha fa taxamala mu karaxalaba maanaam doomu jaam yi asxaabuhu saxaaba Cheikh Tidiane radiallahu anha anhu maa ngi jégalu waradduha ñu delloo ko maanaam karxala yooyu taalibi Cheikh Tidiane yi doom doom yooyu nga xam ne ay jaam lañu leen a jël delloo leen wala ba'sa alayha te amu ci benn problème وقالت له منك يوم تجيء يعطيني شيئا نستعين به على أيتام لي وقالت موه له نيل كو يوم تجيء بس بيغي نيو توتي بو في نيو توتي داك ما ينديل شيئا بير مو خام داما سي جير غير دوندالي جيريم يي فاخبره بذلك مو خمال فأمره أن يعطيها عشرة أمدار من أمبني موم صحابة شيخ تيجان بي وخ شيخ تيجان شيخ تيجان ديغال كو مو فكي مدو تي بيب يوم أتت القافلة بسب قافلة بيكفي لمحلها تبربا ثم بعد مكس القافلة نحو العشرة أيام كون بمنكي بم تي يون بلومات فكي فان baasalaha aydan mu yónnee ci moom ba tey annahu yuhibbu an yursala alqaafila li mahalliha ne moom dafa bëgg qaafila bi ñu delloo ko ci bërëbam qaalat li saahibi mu wax borom qaafila bi ne ko in kaana baasaha baada yawmayni aw salaasa wa in zaadat ala zalika taqaw laha utlatun bi sababi mawti sultan mu ne waaw loolu de mën naa nekk su fekkee ci diggante ñaari fan wala ñetti fan waaye su ëppee ñaari fan wala ñetti fan amaan na gàllankoor dab ko ci sababa ak dee ak sultaan bi ba mu waxee nag fa axbarahu mu wax ko moom Cheikh Tidiane bi maqaaliha ci maqaalaam bi mooy ruux indaha wasalha an ilqafilati ma lam ma la lam tada bum ñëwee ci saaxibam xaritam boobu nga xam ni mooy sultaan bi wa raddahu ilayha mu delloo ko ko وقال لها منيكو لم يتيسر الامر لنا في هذه المده لامر ميرمي دي يومبول سي نون بيلي دير غير اي مير فاعادت عليه قولها الاول مباملات كو وخم جو نك جا شاتي جان رضي الله عنه خار نياري فان نياتي فان دا وخم جو نك جي موي ci diiru ñaari fan wala ñetti fan ba mu toogee ñaari fan ci la saahibam boobu dee suma tuufiya radiyallahu anhu fa xadarat mu teew moom ndaw si janaazatu ci julleeg néewam ga fa qiila laa ñu ne ko wala fa xadarat mu teew janaazatu julleeg néewam ga fa qiila laa ñu waxeef ko ne alaysa qad qulti sultaana qaalat naam haza huwa sultaan mu ne kon xanaa waxoo woon sultaan mu ne waaw kii mooy sultaan waaw ndaw sii ñuy wax kiñ ci jublu mooy majzuba boobu ñuy wax lalla mannaana ashin yuura lalla mannaana الشنيورة ما لها لم تظهر لماذا لم تظهر loolu lay firi ndaw soosu nag Cheikh Mouhamad Raadi Gannuun tarjamal na ko boo demee ci téeréem bi mu tuddee ni saawun tijaaniyaat tarjamal na ko foofu mu ne kooku moo tudd Lalla Mannaana al-Balxiisiya ñu gën ko xamee bi Shinyuura شريف لون بو ماغ بورومي كرام لون يون خمون كو تي جزبو مجزوب لون كو بغون مولانا شيخ تيجان رضي الله عنه شيخ احمد سكيري واخنا تي موم تي كشف الحجاب ني كانت رحمها الله لها قدم راسخ في المكاشفه دا فامون دغ بو دغر تي كشف امون جزبو بو كاري fi baadil awqaat ci yenn maanaam jës bu daan noot ci li ci ay temps bari woon na lim daan dikk ci kër euh, borom tarjama bi mooy maanaam ki kii kii Cheikh kër Shukayri doon tarjamaal muy Seydi Ahmad ibnu Muhammad Banaani mu ne saaxibuhu xaritam ba bam mu di diisoog moom dafa diisoog moom ci ay kàddu yu rafet mu koy junju ne ko na gaaw dem jëli tariqa Cheikh Tidiane commencé di ko jàngal ngëneel ya ak li nga xam ne moom moom la ci jëlee ci lu baax ak ni ñuy ni ñuy e, wirda wirdu bi Cheikh Mahamad Radi Ganoun ci téeréem boobu mu ne sëtëm bi ñuy wax alfaqix al sayid abdusalaam nettali ne maamam biñ tudd ni mooy sid ahmad banaani mu ne ba mu dikkalee soxna sii di lalla manaana ngir di diisoog moom ci mbiru tariqa mu ne ko balaa nga ma wax benn baat yow sidi ahmad ibnu muhammad banaani dinaa la ma ko fi indi mu ne ko danga koy ñëw ngir diisoog man ngir ma jël tariqa cax ci caan waaw danga fee ñëw di jita tushawiruni fil axzi ci jël tariqa tijaan maanaam moom Ahmad Banaan moo ñëw di diisoog moom pour bëgg a jël tariqa tijaan mu ko su fekkee nangul nga ma laaye biir bi ma lay laaye biir gaawtul nga dem jëli tariqa bi kooku la tuddee sànk ci wax ji sultaan mu ne waqad waqa li maahu qadaaya am na ay xadiya yu bari yoo xam ne dox na sama diggante ak moom bokk na ci ani kuntu yawman jaalisatan benn bis sama toogoon fa ataani mushawiraani ñaari nit ñu ñëw di diisoog bëgg diisoog man ñu ne ma quumi tukallimu nii assultaan fa zanantu assultaana mawlaana suleymaan mu ne bañ ñëwee dañ ne ma ñaari xaajib lañ maanaam ñaari soldat bañ ñëwee ne ma jugal tukallimi assultaan nga wax ak buur bi mu ne ma njott ni mawlaaya suleymaan la may wax wa kaana kathiran ma yursilu ilayha wa tazabu ilay te mawlaaya suleymaan bëri woon na lu muy yónnee ci moom waaye moom itamit bëri na lu ñu daf ko bëggoon mbëggeel bu spécial mu ne ma jóg ànd ak ñaar ñooñu bañ génnee ci buntu ba bañ demee ba ci baabul foto benn la ci buntu faas ya ma fekk fa wajattu hunaaka al mahalla ma fekk ni foofu mooy mahall ba bërëb ba ma ñëw fa qaddamtu ila sultaan ma ñëw ci sultaan falam ajid mawlaa eh, suleyman mawlaana suleyman fekk ma fa mawlaana suleyman wa innama wajadtu saydi ahmad atijaan radiallahu anhu ma fekk fa saydi ahmad atijaani radiallahu anhu mu ne maa taqulina anta fi duxuli taauni ila hadihi almadina lan nga lan nga wax yow ci mbas mi nar a dugg ci ci ci ci ci ci dëkk bi fa innahu la budda min duxulihi لهؤلاء الناس الذين اتصفوا بكذا وكذا ناخ رك باس مي دغ في ناخ غا نيغا خامني نانغام اك نانغام اك نانغام لاج مال نيوم نيو ني نيو دغ سي دك بي وعد جملة فعال قال فلما سمعت منه ذلك قالت له ولفر إذا وقع الإجماع عليه من الأولياء الموجودين ولم يقدروا على حمل هذا البلاء فأنا ألقى البأس عن الناس قال لها أتقدري على ذلك وتتحملي به قال نعم بكم أولا نشاط جان وخي وخم اسمه ونكسو فكي برمي موم فاوما تولي نك دك بيب منو نيو بلا بو جانيال كوني من بيرسونيل ما مان ماكو يانو وانا شيخ تجان نكون دامن قلول منك واو ومن ناكو كي فأمرها أن ترجع عن محلها مدقلكم كرم فلما دخلت على باب المدينة بمدقية بنت مدينة سمعت من ورائها عمارة بارود أصابتها فسقطت على وجهها وبقيت ساقطة حتى جاء الناس بالنعش وحملوها عليه حتى أوصلوها إلى محلها وكان الناس يسمعون البارودة يتكلم فيها وهي تصيح آه، في كل مرة إلى أن قضى الله برفع ذلك البلاء عن هذه البلدة مولانا الشيخ رضي الله عنه daf قال digal ne ko demal toog ba yegg ci buntu dëkk ba mu ne mu dégg ci ginnaawam baaruda maanaam benn jumtukaay la boo xam ne produit chimique la bu ñuy defar bu mel ni bomb day exploser affaire bi dal ci kawam mu daanu bam daanoo nekk ci suuf si ba nit ñi ñëpp daje bañ indil ko ak tàdd sax pour foog ni dee na pour teg ko ci ñu teg ko ci daal di koy yenu xatta awsaluha ila mahalliha yóbbu ko ba ci këram fekk nit ñi yasmaawna ñu ngi dégg baarut boobu yatakallamu fi muy wax wa hiya tasixu fi kulli marratin moom mu ngi yuux rek ila an qadallah bi raf ba yàlla dogal ni day teggi balaa boobu ci boobu le dëkk non la teggee bala bi ci dëkk ba motax al alalaama sayyid ahmad sukayrij radiyallahu anhu wax ci maqala bi ne ki imraatun tijaniya kanat ma'rufa min majazibi fas wa hiya al maqbura bil kharib al muqabila man hiraf siqayatin bi baabi الرز بطانه مما يلي دار الأمير أما أمرانيين بحومة السجاي على يسار الطالع ونكي سخنا لون جو خامني تيجان لون مجذوب لون ci majazi bu وهي موم المقبورة موي كينو سول بالخريبة ci خريبة nga xamne mi ngi jakarlo siqaya bi nek ci ar-Razbataniya nekk ci ginnaaw kërëg ñi ñu tuddee al amraniyin ci xawmati sijaaj ci siyaaj ci càmmooñ ak taabia kon kooku moom mooy lalla man kon mbokk yi loolu mooy suñu dars ci ifaada tey